téléspectateurs c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve ci ki nga xamante ne moom mooy marché Mame Diarra a ci Guédiawaye ki ñu fi woo moom war a dox ci diggante Bébé Saloum ak ki nga xamante moom mooy Franc mu war a nekk combat bu am am solo ñu war a jàkkaarloo le huit foofu ci arène nationale tey nag moom mooy seen dernier face to face bu a ki nga xamante moom mooy euh, Saloum Philippe bu fas yéene xool ki nga xamante moom mooy Bébé Saloum bu ñëwee information yi nga xamante ne promoteur war nañu koo xam nañ ne ki nga xam ne moom mooy Lirou Diane waroon na cee jàkkaarloo bu wulli Lirou Diane dem États-Unis loolu yëpp di ngeen ko am comme mbokk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 war ngeen di man di muñalante di jéggalante di jëllante du noonu la demee Cheikh Omar maa ngi lay bëggee borom Equivox Fara maa ngi lay waaw maa ngi ziar ñëpp salaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi teew fii yëpp baax na waaw di nuyu waa CNG di leen jégalu aussi si tardement bi man damaa tardé yoon bee xatoon quoi maa ngi jégalu bi wér a wér di nuyu sama adversaire dégg naa mu yoon fii mais après dafa dem ko mais xëy na nag loolu moog waa CNG la après dañ ko lijjanti mhm. mais man jàpp naa ni ak fu làmb toll nii war nañ ko mën rafetal mhm. naay sel ko te tamit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 waaw moom champion la du ma taay di ko wax parce que daan na ñoo xam ne maa ngi ñoom bëreeguñu comprendre nga champion la ma jox naa ko cër boobu ma waaye bu arbitre sifflé du tee ma war a def li ma war a def dem ñibbi maa ngi nuyu tamit suma gars yi ku si mel ni Goro Sock bi ma àndal ak Koroko États-Unis la jógee ñëw ci combat bi. jógee États-Unis waaw góor a béy xam xanaa ci usine Koroko ba Côte d'Ivoire lay di nuyu sama grand yi ne yëpp ak ku si mel ne ñoom Mor xam nga. waaw léegi nuyoo nga ba pare ñaari wax yi ma la wax da nga koo leeralagul ñii dañ ne boo ko jàppee daan ko ñen ñi ne tey ci moom. waaw moom champion la comprendre nga waaw moom champion dañ ko jox lépp lu moom rek ba bés ba waaye bu arbitre sifflé man ma def li ma war a def dem sama insha allah comme moom nekk fi nag wax ji moom dana am parce que daa dugg parcelle mhm. daan fa garga mboosi jël bu rëy a rëy boo xam ne ba tey nit ñaa ngi koy waxtaane mhm. waaw loolu moom fa wees wax ci daan xaarim gadega ba nekk président rock énergie waaw nañ bàyyi ah.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 ah borom lii neexul liiru mu ni maa monument way liiru gis nañ ko dem man dem woon na ma ci appel mag Lamine mi mu nga États-Unis yaakaar naa loolu nu muy demee. waaw ñu ngi koy ñaanal ah.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 demin bi nag dañ koy rafetlu di ko ñaanal moo xam lu tax mu dem yàlla na ko yàlla defal. am na solo loolu lañ loolu lañ loolu lañ si mën a wax bëgguñ si léegi da damay ñëw ci benn combat boo xam ne dégg naa yaa ngi ci parce que man comme lamb ko lux mbóot waaye euh, Lamine nee na ma liiru jaan wulli nee na bu nu ko wootee ma ak wala bu nu wootee bu ko jël kon liiru bu nu jëlu sa appel xam ne wullee nu ko tere ndax ay duma la ñuy bañ li waaw Quench doomu dangu dégg naa yaa ngi koy dox. waaw Quench doomu dangu waaw ñu ngi ci woon ak ay partenaires waaw yàlla def na sotteegul mais yaa bëgg nga ko bëgg nañ ko waaw ndax lamb ju neex la lamb ju neex askan wi mhm. bëgg nañ ko incha allah rek buñ gisee ci rek dinañ leen wax lan lañ si mën a fan lañ si bëgg a def

wane papam wane ne moom seen kër université la si tëdd bu fas yéene indi sabar yoo xam ne nii mosu ko dugal ci benn stade. Ah kon bis boobu noonu beneen bis la ci biir bés yi. Kaani saram war ci bëre junni koo ñëwaat de woo jàmbaar rek grand combat. na mu nekk journée boo xam ne ñi ci bëre tey képp koo ci wax amateur rek journée bu muy xaar am na solo ñu dem ba gàmbi jëli fa ñaari champion yoo xam ne tey sooy natt seen dayoo. <laughs> day toll ni Balla Gaye ak Modou Lo ñu war leen a indi fii pour ñu présenter. ci bés boobu si bés boobu muy bés bi nga xam ne moom lañ jagleel yu suma jigéen buur pour Gambie la 14 juin. Mhm. ndax nit ki fi nga wokk fa foo xasan delloo fa loxo dañoo dem Gambie am lu ñu fa def ci wàllam sunu yaay Gambien la yaa ngi ko si biir wax borom ñaari national te juumoo. Mhm. ndax ñaari réew ma meññ. Mhm. kon tey ni ñuy participer ci làmbu senegal noonu la ñuy participer ci làmbu. Gambia Gambie ndaje Seex laa ni ma dama fas yéene làmbu Gambie di dox comme làmbu Sénégal moom doxee. moo tax amateur yëpp nañ ñu xaar la 8 mars incha allahu rabbi arène nationale bi France ak lekkat war fa fas yéene teew France bébé Saloum war fa jëflante mhm. bu ñu passé bu ñu jógee ci loolu nag dinañ leen wax fan lañ bëgg a dem ci làmb am na solo di wax ne rek mhm. làmb dafa xat mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay dëgg la nañu jàppalante soutenirante ndax fa la ñuy xaar làmb tey làmb dañ ne deena waaye lu ci bëri dafa am saaru mbëri yoo xam ne ñoo yàq làmb nit ki bu ngeen di jëflante da nga war di toog di xalaat démb promoteur bi am na loo xam sax bëgguma ko waaye wax ko day day jaadu. waaw na rafet rek. ndax promoteur tey bu jëlee xaalisam jox la ko. da nga war a soutenir taxaw ko. bien sûr surtout promoteur bi moom xam na bi mu lay jox xaalisam situation yi nga nekk. am na nag wax wax yoo xam ne jarul mu yàgg dafa dafa ko moom kon dama ne nit bu jëlee dërëmam di jël sax moromu rakk di jël ko di ko sa bés ah. bul yaakaar ne da wax wax bu neex ba mu jox la xaalisam bu dof du li ngeen seq ngeen nekk ay gor seq leen ndax àdduna lu mat a laaloo la da ngay ëllëg dafa am saaru mbër yoo xam ni tardé woon nañ ci làmb ñun ñun ñun buñ buñ ñëwee pour suqali leen dañu war a jox cër jox ñu respect am na solo loolu moo am solo jama noonu li am solo daal mooy gars